asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kenn mbokk yi ñuy teewlu ñu ngi leen di nuyu waat di wax ni ah, bu leen di fàtte di abonné ci seen bi nga xamante ne si mooy di vidéo secret yi te de di gën di partager tam suñuy ah, yi nga xamante ne si moom lañuy def wala secret yi nga xamante ne si moom lañuy joxe. ngeen di ci gën a man di jot saa su nekk ah, di wax ni tey dañ leen indil benn secret boo xamante ni si ah, secret bu ah, am solo la te itam bari na njëriñ lool li nga xamante ni si nag ci la gën a màcc mooy ñi nga xamante ni si dañoo dem ba toll diggante. waaw ñi nga xamante ni si dañoo toll diggante waaye jigéen ñi nga xamante ni si dañoo toll diggante euh, te mucc jafe leen euh, te euh, secret boobu tam moom lañuy ñuy wax secret bi nga xamante ni si mooy ànd ak xaatimu xasaali yu xaatimu xasaali yu xaatimu xasaali ngeen ko gisee mooy xaatim bi nga xamante si mooy jàkkaarlook ñun waaw tem am juróom benn kër yi waaw nga xamante ne si kër gu ci nekk danga nga def euh, da nga koy euh, rëdd ni ma ko rëddee xaatim ko ni ma ko xaatimee mu carré nga def ci xaraf yu nekk bu ci bu ci nekk xaraf bu fi mën a war a nekk nga def ko ci boo noppee gis ngeen aaya bi nga xamante ne si moom lay jàkkaarloo ñu liir ko ngeen dégg ko mu doon ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim mu doon wa inna min alxijaarati lamma yatafaj lamma yasaqafu fa yaxraju minhu lma mu waxaat ko wa inna min min alxijaarati lamma fa yaxraju minhu kon loolu mooy ah, ah, mooy kon aaya boobu moom ngay bind fukki yoon ak ñaar aaya ngay bind fukki yoon ak ñaar boole ko xaatim bi bindaale tam suuratul insiqaaq bañ ko waxee mooy aaya bi nga xamante mooy saar yi nga xamante ni si moo commencé isa sama un saqat waaw isa sama un saqat wa asinat li rabbiha wa xoqat wa waaw kon aaya boobu saar woowu ngay bind ba foofu nga yem wa xoqat nga yem foofu daal koy boole xaatim bii euh, ji jigéen ji nga xam ne def ko saafara jigéen ji nga xamante ni si dafa toll diggante te mucc jafe ko waaw nga di ko ko wesal ci biiram ak ay tànkam waaw bu ko bu ci mënee naan itam kasaalika moo gën waa kay ñoo ngi leen di euh, ziyaarawaat bu baax di wax ni bu leen fàtte di partager suñuy vidéo ak di abonné ci seen bi ndaxte ngeen di man di jot ci secret yi nga xamante ni si moom lañuy ñuy euh, joxe fii te euh, dara waral ko lu dul ak laa biire jëm ci mboolem jullit rek ñoo ngi leen di sant leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah